saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa coowal CNG président Alioune Sarr anakan moo koy remplacer bu dee daa war a dem anakan la ñu a teg ci bopp CNG mi mu doxal ko bu dee président Alioune Sarr dañu koo tebbi saa yu làmb ji xëyee tudd ay tur def leeni candidat ñi bokk ci làmb ñoomi saa yu ñu xëyee joxe seen xalaat tey Abdou Latif Ndiaye conseiller bu communication bu Matar Ba moo xëy wax ci mbir ma li olof Ndiaye di wax naan naar bu ndaw lu mu wax lu ne ci naar bu mag bi la ko déggee dëgg la conseiller communication bu Matar Ba lu mu wax rek njort nañu a def moom Abdou Latif Ndiaye la mooy le installé pour un nouveau mandat kon ñiy wax waxi fédération nanu ko teg ci suuf te xam ne dootul am mbiri dañuy dem fédération wala dañuy des ci CNG loolee Abdou Latif Ndiaye tranché na ko xaw ma ban mandat waaye mandat bii di ñëw moom du ñu dem fédération dañuy delluwaat ci CNG de la lutte muy comité national de gestion de la lutte kon mbiri fédération féete na boor mbili Alioune moo ca des ba mu waxee ci président Alioune Sarr la mu xamle mooy pour succéder à il faut nga remplacer ko ni moom faaw xam li mu xam faaw nga jaar jaar mën li mu mën dugg fi xamante ah loolee mënul ñàkk bu ñuy renouveler bi faaw mu am ñu génn faaw mu am ñu dugg kay génn kay dugg nag xamaguma kan la en à la fin de son mandat le ministre prendra la bonne décision bu le octobre jotee président Alioune Sarr danañ xool ba xam ndax Matar Ba dana ko fi tegaat wala déet en tout ministre bi moo yor ay décision bu ko neexee mu reconduire ko bu ko neexee mu teg fa keneen li am ba des mooy keneen ko koy remplacer faaw mu mel ni moom jeex lépp dana féete boor leneen la nar a féete boor mooy activités yi nar reprendre wala dañ koo nar dàqani ba yeneen i jamono mbooleem luy activité sportive ci biir réew mi mbas mee taxoon ñu dakkal ko muy lamb di football di basket di handball mbooleem sport bu ñu doon def ci réew mi dañ koo dakkaloon ci noonee la directeur des activités physiques et sportives bu ministère des sports gay joxe information la mu xamle mooy am nañ séminaire la wàcc autorisé waat ñu ñu tëggi combat bu boobaa jëloon kase da ko lekk te xam ne combat yi dana am bu ñu jàllee ci diggante Tapha Tine ak Boy Niang 2 Max Mbergane wax na la naroon a yàq bile combat moom la na promoteur yu nekk ci suuf yàq képp leen tax a jóg du ñu taxawal lu dul bàyyi ba ñu a yàq bile combat diggante Boy Niang 2 ak Tapha na ku jaar ci suuf proposé Boy kase bu waaye foofee Boy Niang 2 doon sàmm kàddoom ndax wax naan ñun ba noppi dafa am ñoo xam ne bëgg ñu làmb ji avancé lu dul mu yàqu rekk la ñu bëgg combat buñ fi taxawal ñu bëgg a jaar ci suuf yàqu ko waaye heureusement que mbër amee bopp ba léegi béy wéy na mbuus léegi nag jàpp dat bëri rek ci des tollatul fu promoteur di yàq bu nu jàllee ca Gris Bordeaux le troisième tigre de Fass le journal ba xamle mooy Gris mooy premier VIP bi njëkk jot 100 millions Gris Bordeaux la njëkk a téeméeri millions ci lamb ji en la woon digganteem ak Bombardier bi lee kasilig moo ko ko fayoon waaye léegi jàppatuñ ne Gris Bordeaux dana amati li ni toll moom digganteem ak Bombardier la fayeeku woon li ni mel bu nu 42 moom victoire am ba victoire depuis boobee ba léegi moom l'an 2000 sax da koy të foofee seen ñetti victoire ya booy waar moo daan booy njaagu bu yëmbal mare maadi moo daan coppet bu lansaar délégué moo daan fat-fat bu fekkee ma ci boole seen benn défaite ba almaa bu jàmm ji kër mbay faal moo daan booy waar bu dee seen coach su basal ba mu xam ne mooy am naa yaakaar bu baax ci saison bi ñu dëgmal gone yi nekkoon nañ ci lancé boo xam ne lu